man sama mag la waaye man dama koo fan lii ma utaloon sama bopp moom laa koy foofu lañ koy dej te foofu lañ ko dej démb ba may waxtaan ak ñoom Moussa Faye am na feneen ku ñoo xam ne fa lañ koy utale maa ngi leen déedéet sa place boobu mu waxoon ni jënd na ko du ñàkk ni xëy na du am euh, luñ ko mën a arranger ba mu nekk foofu tey suba oo nañ ma téléphone nee nañ am nañu foofu place foofu te te fii nii déedéet fële sa yokk ci diggante Assane Ndiaye ak euh, papaam euh, góor maanaam muy Mamadou Ndiaye Aba Ndiaye foofu donc foofu kon boog yàlla mu wattali na yéena bi ci même place yi foofu yàlla def na ni fa lañ koy dañ kon alhamdulilah rabbil alamin Assane euh, Pape Demba nekkoon ku ñëpp ñëpp a ko xam ku dëggu mi ne man lu may dugal dama ciy dem ba jeex loolu ko ku xam waxu pa dem Pape Demba loolu da koy dem ba jeex boobu ku ko te ci dëgg rek la doon nekk. man am na benn cër bu mu ma joxoon dinañ nekk fenn mu am loo xam ne ci dëgg la koy teg de moo ko tax lan laa koy noppiloo dama ko ne hee bul ma xool ni may wax de te imaam may wax ak yow bu ko ne mu dellu gannaaw daal daal bàyyi waaw waaw kon jox na ma joxoon na ma boobu boobu se yal na yàlla jégal ko yërëm euh, gannaaw loolu Moussa Faye tam mi ngi may wax ne ma su fekkee ni ay mbirum doloon bu ñàkk ñu ñu koy laaj ci bërëb yu mel nii su fekkee ni am na ku ko amee bor wala mu amee ko bor nañ ñëw seet Moussa incha allah su fekkee waaw ah? waaw waaw ah, kon boog nañu loolu waxi ah, la ko internet bi comme ni ngeen ko gisee ñu fii si nga xam ne mooy Medina si nga xam ne mooy artiste comédien bi nga xam ne moo génn àdduna démb démb si ci ci guddi. démb ci ngoon muy Pape Demba muy Pape Demba moom la ñuy mooy dem jébbal boromam fële ci armée yi Yoff xam naa ci kanam dinañu am li nga xam ne mooy réaction yi nga xam ne mooy dëkkandoo yi ak am na jàmm yi xam ne mooy taxawaay boobu ñaanal yàlla yàlla xare ko xare ko àjjana ñu gën a kawe ñaan xam ne dinañ dugal li bi imam mooy wax noonu imam képp ki nga xam ne yaa ngi si live di ko seetaan nga ñaanal ko yàlla xare ko àjjana nga ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca armée euh, Yoff ñu ngi noonu di ko waajal wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma axfirlahu warhamhu wala boo ngeen yàlla ko yàlla jéggal te yërëm allahumma amiin ci gannaaw sàbbaru ñeenteel ñu doon lu ko ñaan ñaanal suñu bopp de sëmma yàlla yàlla nangu allahumma amiin allahumma amiin kàddu yi ñeent la waaw wala asalaamaaleykum àggali wax boobu soxla imaam mu ngi jégaluwaat taxawaay beeg yàggaay bi waaye ku nekk bis nga xëy na li fi dul neex nit ñi mooy ku mel ni comme man bëgg fekk ñëw ñu def ba pare nga ne da ngay loolu rek waaye ñun ñëpp lu baax la ñu bëgg. Papa Demba bii nag jaraloon nañu kii ba suba ba gannaaw bi mbaaxam ak maanoom dala ma teeyam kon nag imaam tënkul nañ ñi ñëpp. lépp lu waay war a wax lu waay nar a def nañ ko jël lépp dëkkal ko ci ñaan bi ñu koy ñaanal moom la soxla yal na ko yàlla fay baax yal na ko yàlla fay jëfam yal na ko yàlla fay lépp lu baax nee na nag kàbbar yi ñeenti kàbbar la diggante kàbbar ak kàbbar bu ne ku mën ñaan bi na nga ko def faatiha la ca kàbbar bu njëkk ga beneen kàbbar gi salaatu ibrahima beneen ba ca topp nga ñaanal ko moom ñii nañuy ñaanalee woy jiitu bi ci topp na ñaanal mbooloo mu ci ne ñaanal suñu bopp ñaanal àdduna bi yëpp yal na yàlla dool mee wàcce jàmm réew mi gannaaw loolu nag ku mu gis ci salaam yi mel ne comme man saa bu imaam kàbbare ci gën a gàtt nga ne alhamdulilahi salaatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ndax góor la ku mu gis tamit ci sa làmmiñ nga mel ni comme man saa bu imaam kàbbare nel alhamdulilahi sant julli ci yonente bi daal yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko yal na ko yàlla dafa loolu gannaaw bu ñu ko defee léegi yàlla dafa laat ñu ko dund ñëpp yàlla fay ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout cas daal ku baax a ngi nii ku baax a ngi nii ku baax a ngi ko baax moom ci barke Seydina Muhammad imaam nee na bu subaa lañ koy ñaanal fii ci buntu kër gi ci ci fii ci kër gi fa mu daan toog toogaayam bu tell gi fa mu daan toog toogaay bu maanu bi fa mu daan toog toogaay bu baax gi maa ne suba fa lañ koy ñaanale kon na fa ñëpp daje ci buñ ko mënee sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp yal na yàlla fay ko kàddu imaam yi nee suba fii lañ koy ñaanale li nga xam ne mooy rue 3 الله Allah defee ñu ko jullee ñeneen yoof lañ koy yóbbu fii di Pape Demba ñu noonu ñu noonu ñu koy jébbal boromam armée de Yoff di ko ñaanal yàlla xaareel ko àjjana ñu gën a kawe kawe mu ngo muy Pape Demba buy nit ku baax nit ku xam ne ñëpp seede nañ ko ci ñëpp seede nañ ko ci noonu Pape Demba Pape Demba ñu noonu de ñu noonu ñu ci almeeru Yoof dégg ngeen seede yi seede mooy mooy lépp mooy seede mooy nit ku baax la nit ku Moussa Faye Moussa Faye tamit ñu noonu muy li nga xam ne tamit bokk la ci moom ñu jël ko waa Medina tey ñëpp teew nañ pour gunge ko gunge ko gunge ko noonu noonu xëy ñu dem am bu ñu mënoon amal réaction Bamba Fall ndax ku xam Bamba Fall xam ko ak Pape Demba ñu ngi noonu tamit di maire Medina ñu ngi noonu di soo yesi Samba Kabara ñu ngi noonu ñu ngi noonu di ko wax euh, jébbal boromam. mu ñëw nag jaar ci gannaaw mu ngi noonu. mais kilifa gi may ko kilifa gi ñu mu sànni ñaari kàddu balaa ñoo dem monsieur le maire ñaari kàddu rek yaa ngi si live en direct te yan témoignage nga ñu mën a defal ci ki nga xam ne mooy Pape Ah, sàmm sax jëloon na kàddu ba noppi mais liñ ci mën a wax mooy euh, doomu Médina bu dem rek perte la surtout muy doomu Médina bu tekki dara koo xam ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal je pense que tey euh, monde culturel bi yëpp a ñàkk mais Médina aussi ñàkk na may euh, koy ñaanal yàlla ndax rassembleur la woon fédérateur la woon lu yàggul dara rek woote na du la sekk dajale doomu Médina yëpp yëpp yëpp yëpp am ñu mu sargal tuddee ma ko pour dajale waat ñëpp wax ci wax ju rafet jëf ci jëf ci rafet barki démb rek bi ñu bëggee def lu mel noonu lañ koy laajtee pour woolu ko ñu ne ñu ah jaga ji daf koo jàpp ñaari fan mu ngi nelaw waaye loolu la yàlla bëgg yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana yàlla teg loxol ci njabootam te lii tamit yàlla na fi géej mais nit ku baax la quand même nit baax ku mën a boole ku mën a dajale la ku mën a wax lu baax la yàlla na ko jëfam ju rafet ñëpp seede fekki ko mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu Pape mu ngi noonu di dem mooy ki nga leen waxee sànq mooy Moussa Faye moom it xam naa du ñàkk si kanam dinañ am euh, réaction gis nañ ko tamit moom Abdou Ngiraan ci ci ci bi Pape Demba mi ngi noonu di dem àjjana ñu gën a kawe kaw si kaw yàlla sunu papa sunu papa papa papa dañ lay jaale. dañ lay jaale yow papa Lamine Ndiaye dañ lay dañ lay dañ laa guddal fan papa dañ laa guddal fan papa yaa ngi direct yaa ngi direct yaa ngi si direct bi. waaw waaw kon témoignage bu gàtt rek papa dañ la fay. ñaan direct la direct bi Dak TV nga nekk ak rajo municipal de Dakar. d'accord d'accord d'accord tey euh, mu nekk loo xam ne nii lu gàtt lay doon waaye bu ñu ñibbisee li ngeen soxla yëpp naa leen ko defal. donc euh, Pape Demba nekkoon na koo xam ne nii. vraiment ku baax la woon ku yiw am xalaat yu rafet rafet li mu nekk jamono yi tey yëpp man ma leen di formé parce que man maa yore woon jamono yi tey nekkoon koo xam ne ni euh, bëggul woon ku fontoo liggéey bi tamit loolu tax mu ñàkk ci jaaxaan doon ko def correctement ba nga xam doon nañu dimbali sax ci loolu pour ñenn ñi nga xam ni c'est des récalcitrants donc euh, je le si en tant que son initiateur et en tant que son frère ba pare moom dafa doon maam ci man mu doon mbokk donc euh, loolu lu rëy la ci man lii nii dañuy naqarlu rek waaye kenn du xëccoog yàlla waaw. jullit dëgg la woon. jërëjëf papa jërëjëf jërëjëf waaw. kooku mooy sunu papa Lamine Ndiaye. dégg ngeen ko kàddu témoignage yi nga xam ne def na ko ci ki nga xam ne euh, moo euh, muy Pape Demba ñu ngi noon nag di dem ñu ngi noonu di dem di ko ñaanal rek di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana yu gën a kawe xam naa incha allahu rabbi si si kanam du ñàkk ñu am ay réaction yoo xam ne si jëmm ji nga xam ne muy Pape Demba Ndoye koo xam ne xam nañ ko ndax ñu ñu dëkkan Médina xam nañ ko bu baax a baax di nit ku baax nit nit ku nit ku dal nit ku dal nit ku bëgg nit ku bëgg nit saa bu la gisee rek da jéem a euh, day waxtaane yow pour mu lay tegaatee si yoon loolu daal lañ ci mën a koo xam ne tamit euh, Pape Demba day nit koo xam ne nekkul koo xam ne day nëbbutu wala yooyu day nekk koo xam ne saa saa boo duggee biir maintenant da koy gis da nga koy toog bëgg a waxtaan saa waxtaanam lépp mooy xool nu muy encadré nit ñi ñu muy ñu muy tegee nit ñi ndax moom bu sañoon daal Pape Demba nit daal du am problème kon xam naa sama gars yi di leen leen indi loon si li nga xam ne mooy levée de corps Pape Demba di artiste comédien bi nga xam ne moo génn am na démb xam naa si kanam tuuti incha allahu rabbi dinañ amaat yeneen réaction bu ñu demee yoof ba ñëw incha allahu rabbi